moonu daan woo ci yoonu yàlla ak dara sëriñ boo xam ba yàlla Cheikh Bamba ko waxoon ci moom muy yaatal sëriñ Saliou fu man dem lislaam la doon xëy àndal yaa waasiyaan ja Cheikh Bamba waxoon te way wa moo yàkkali mbirum sëriñ Saliou loolu doy na xar wa maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibi yi fi maa ngi siyaare ñëpp di nuyu mbokki jullit mbokki murid waaw moom day bis bi 17 avril 1946 loolu lu yàgg la waaw day bis boo xamante ni euh, ak cant la mooy daje ba Cheikh Béthio daje woon ak sëriñ Saliou ca Tassette waaw ca toolu baayam ba Serigne Saliou daa dugg ci watiir watiir bi daw sëñ Béthio boobu mi ngi am juróom-ñetti at ko magam ji ñuy wax sëñ Gille Cuun ñu nekk ci seen toolu baay di bay boobu waxtu cooroor la cooroor nag mooy waxtu wi ngay waajal waajal gajj gajj mooy ruuj waajal forage wax xeet yooyu ah sëriñ Saliou romb ko ci watiir bi di daw moom bi sëñ Saliou rombee di dem ci zaahir moom xamul sax kan la woon daa seen muy daw rek mu topp ci waaye nag fañ àndee la kenn xamul bi wutali bi dawee mu topp ci ginnaaw sëñ Saliou daal day joxe ndigal ngóor si yoroon ki yoroon fas bi di jokke bi ni ko taxawal mu daal taxaw mu ne ko nongo la ñëwal siyaare bi mu ñëwee mu daal di seex bi mi ngi nettali sax ni moom bi muy joxe loxo sëñ Saliou nee benn loxo la ko joxee te mu ngi koy tuub boobu ba léegi boobu ko ne la mu ko joxee loxo sëñ bi ne ko yow noo tudd mu ne ko Béthio laa tudd mu ne ko kee samp gopp bi kana mu ne ko sama mag la gilla cun bokk ndey ak bay mu ne ko xanaa seen toolu bàyyi ngeen nekk mu ne ko waaw fa lañ nekk di Mbàkke mu ne ko maa ngi dem sa kër bàyyi Isma Diouf bu guddi jotee nag moo fa fekk ah, guddi jot sama mam maam kulicun nekkoon bu tàng muy góor gu waxtu yooyu jamono jooyu daa amoon foo bu ñuy wax gàttombe gàttombe mag ñi ñoo koy xam di foo bu metti moo xamante ni ab cercle la ñuy def ngeen taxaw ci biir di dóorante kur fañ ku njëkk a génn ku njëkk a génn cercle bi nga mu po xewoon ci yooyu ñoom ñu bokkoon nag ñoom ñu ci mënoon ñoom waa ñoom cheikh bi ak sëñ gi la sama maam daal leen aye génn guddi ah ñu dem sama maam ne ko ah ñun kat daa mbenn mbàkke mbàkke ba fi romb sëriñ mbàkke mbàkke ba fi romb ni ñu bu guddi jotee kat nañ ko fekk foofu ci kër Baay Isma Diouf sama maam ni tekk lu baax bu naree ñëw rek day sotti ñu ne ah ab ah, mbàkke mbàkke la nga ne waaw mu ne ah ñu sant mbàkke dañu baax lañ kon nag na ngeen sol seen i yëre sangu te dem te dem ko nee na waxtu reer jot ñu daal di solu ba rafet sol seen yére dem fa ba njëkkee àgg sëriñ Saliou Cheikh baa ngi nettali nee na bi ñu ñëwee ñu ngi ko fekk mu toog di xelli warga bi ñu ñëwee tëll kaasu otaay bi mu njëkk xelli moom Cheikh bi la ko jox takat nee nañ sëñ mag bi bu loo joxee warga wala café dalaa joxeloo ay xiwal sëñ Tuubaa bu loo joxee kaasu warga wala café mooy dalaa joxe loo xéewal ñam looloo rogalaat ñam loolu moo ko jox kaasataay boobu moo waral lépp ndax kat sëriñ Tuubaa daa lu mu wax sëriñ Saaliw moo ko nettali nee na sëriñ Tuubaa dane na sëriñ Tuubaa dane nit ñëw sama kër gi dem seex te xamul lu ko seexal nit dana ñëw sama kër gi doon sak wàllu buur yàlla may ko ko nit dana ñëw sama kër gi daa am mbay rek sax xam lu ko jox fekk sa ab kaasu ataaya képp aw la kaasu kafe la ko naan sa bëtt bi tax Sëriñ buy fal ci kaas la koy def war nga la koy def kaasu ataaya wala kafe boobee ci la ko def la muy def mu def ko ca moom muy bis boobu ñuy dem di dem di dem de waaw ba jamono ñëw ah bis bi nag li ko waral mooy daa jaare ci soxna Aïcha soxna Aïcha kan moo tëdd ba guddi am baat baat yee ko ni ko le fekk Cheikh moom yàgg naa wër bis bi xamul bis bi avril mois avril la woon waaye xamul woon ban date la mu yeewu rek ci guddi ni ko 17 avril Cheikh bi ne ko lu xew mu ne ko 17 avril lañ ma wax de nee nañ ma 17 avril waaw ndax day am yoo xamante ne maam du gént lañ lay wan am na yoo xamante ne du gént wan la cheikh bi ne ko ah li ngay wax de xam naa ko mooy 17 avril sa bis ba yow sëriñ Saar yoo la wax loolu ci la bi bis bi nag waaw ba tey ñu koy sos muy bis boo xamante ni moom mooy bisam kenn ku ne da am sa bis waaye moom bis bii la am muy bisu berne bisu wàcce kaamal alxuraan jàng ay xasida bisu sikar bisu ñaan ñaan mu yàgg fi moom te wér waaw loolu lañ ci moom cant gi mooy mbiram ndax ibile wala daawaru sikran la suñu borom wax digool nañ ko yoon di yàlla daaw da ak cant mooy jaamu yàlla bu gën a féete kaw loolu ñun sëriñ Sall du ko ndax ginnaaw néeg sax day sant miir yi sax day sant miir kër yi sant ndax sëñ Saliou mos naa jógee got yàgg fa lool gëj daal dafa gëj lool ay bi mu ñëwee dugg ci néegam ba néegu boppam ba néeg ba yàgg mu yàgg waaw lënd yi mu lënd néeg bi xaw a pënd bi sëñ bi boote ñaari loxo mi tedd yooyu dugg ci biir néeg bi daane teg ndax xam ne laa rabbil alamin néeg bi de ñu ngi may xamal ne ma mi ngi sant mi ngi sant yàlla waaw kon ak cant mooy lépp mbindaa foon yëpp ñooy sant yàlla ba ci garab yi dañuy sant yàlla fi mu ne garab yi dañuy sant yàlla tur yàlla la ñuy sant ngelaw li day sant yàlla suuf si day sant yàlla ñaar nag moo ñu seex ñun doomu aadama muy ak ruu ak ban doomu aadama ñaar ko seex ruuga ma nga jóge ci yàlla lay tax muy jaamu yàlla mooy ruuga lay tax muy mooy suñu borom nag mooy suuf si ndax ñett suuf la jógee ca ban la jógee suuf moom yàgg naa mooy suñu borom kon ñaar yooyu dañuy xëccante waaye loolu lépp sëñ Tuubaa daa ram mu jaam ñëpp ñaanal yàlla njëggal jaam ñi ak bur gi ndax sëñ Tuubaa suñu borom da ko mbaa yàlla moom ñooñam wa kulli amri ñi bi aqlaha mbaa yàlla googu ma la mbaa yàlla ba fu ma ba nga xamante ba fu la neex jëm dëgg suñu borom da ko mbaa yàlla naa la mbaa yàlla googu ma la mbaa yàlla ba nga xamante ne ba fu la neex jëm saa defaral naa ko ñu waaye nag ko ñu mbaa yàlla rus ngaa def lu bon say si cër day lott ci bon yaa ngi dégg moo tax bis bi bisu cant la lépp ci la bokk muy maa yàlla gi muy doo ama sukkur gi ndax faaw ñuy sant suñu borom ak di ko jéggalu di ko ñaan waaw dañ koy jéggalu tey def li mu digle di tere li muy ñu ba loolu mooy mbir mi waaw cantaakoon nag li nga koy dee wax a ah, mooy xeet wu tuuti la woon si borom da ko wax ci alxuraan ni xeet wu tuut la woon dañ dañ dem ba jëmee jamono xeet wu ndaw lay doon waaw ñi sant yombut sant yombut ndax sant ber na rendi te boo koy def doo ci am xajje ak seen bég te bég la loolu moo def cant